ñëw sax ci tàkk Sénégal gi phénomène bi ñu euh, gis fan yi mm-hmm. ku ñu convoqué rek mm-hmm. nga au lieu nga jóg dem wuy ji yow kese mm-hmm. mais da ngay ànd ak sa gàngoor ànd ak sa mbooloo yooyu noonu di indi ay sànnante lacrymogène ay euh, xale di ci gaañu ay biir di ci gaañu est-ce que rafetul buñ la woowee nga génn yow kese dox dem wuy ji ak euh, te bañ a créer benn boucan. waaw loolu loolu tamit. Euh, loolu c'est important mbir mu bees moomu. xaw ma xaw ma lu bees la xaw ma. loolu moom du lu bees. Hmm. <laughs> loolu nit ñi mooy xam nga malheureusement. Hmm. Sénégal journalistes yi am na ci ay ñoo xam ni ay professionnels lañ. Hmm. man naw leen trop mais am na ñoom dañuy gaaw a fàtte xaw ma. Euh, am na ñoom comprendre nañ la dañuy gaaw a fàtte mais am na dañuy fàtte fàtte. <laughs> parce que te fàtte xaju fi <laughs> Idrissa Seck. bi ko fi commissaire Assane Ndoye wooyee. loolu fi la ñu fekk ñun. Idriss Seck di wër ndakaaru yëpp ak otoom. Hmm. Sandaga ak université fépp mu jaar fa. Assane Ndoye toog di ko xaar rek. Hmm. toog di ko xaar ba mu ñëwee mu laaj ko nit nit yaa ko woo heure bu ko neex lay ñëw. nit ki yaa ko woo bàyyi ko mu mu mu mu. am na droit ay nitam. rawatina ab leader buy wutum réew buñ hmm. naxante. Macky bañ ko convoqué Colobane man yi ba ma fay dem tàggu ma woon kenn loolu loolu loolu fàtte xaju fi. loolu journaliste yi koy wax ñenn ñi dañ leen a dañ leen di jox xaalis pour ñu koy wax yaa ngi dégg man maa ko wax. Ah ah. am na ay journalistes yu ñu jox xaalis. non non man dama lay wax lu leer. Hmm. bari na journaliste yoo xam ne fii ne bu ñu waxee rek da nga xam dañ leen a ger man imam Dramé la ko du ñëpp nag. Hmm. parce que am na fi ñu sérieux nekk ay jullit fa yéene nekk ay gor. mais am na fi ñoo xam ne jaay nañ seen éthique ak morale bu yàgg loolu mooy dëgg. Hmm. te nit ñi xam nañ leen xëy na wax ko dañoo xam ni lu waaye ren di sa loxo lay nàcc am na loo xam ne fàtte xaju fi lii dëgg mooy nit ki bu ñu la woowee say mbokk ngay àndal di wuy ji mon frère yow mi bu ñu la woon tey waa Sénégal set duñ fi det duñ toog man mi du ma toog damay ñëw yàlla na yeex man bu ñu ma woow est-ce que yéen da ngeen di toog déedéet Sénégal ñun la tëddee Barthélemy Dias dañ ko woo mhm. ñi mbokkal coalition jóg ku mhm. mel ne soo ko jóg ànd ak moom loolu amul dara lu ci nekk nañ leen nañ leen accompagner ñu loolu rek moo ci war a am. Mhm. man nag li may ñi ma xam ni dama leen di féliciter te mhm. loolu man sama responsabilité la man maa ko maa man la maa ko jàngat ba gis ko mooy jàpp naa ni gis nga lu ñu mën a wax ci réew mi ak lu wax ji bari bari suñ police bi ñu am. Mhm. ak gendarmerie bu ñu leen bàyyee man dama gëm ni bu ñu leen bàyyee rek kenn bañ leen a manipuler situation réew mi lu mu tàng tàng mën nañ ko gérer. mën nañ ko gérer parce que bërki démb. donte dina am dina am ay erreur te erreur yooyu dinaa ci ñëw. Mhm. bërki démb coow li bari woon naa. Mhm. Barthélemy day wuy ji wala du wuy ji waaye gis nga ni lu metti metti gere nañ situation. géré nañ ko. géré nañ ko. Mhm. te ñoom it dañ fee toog pour gere situation bi. mais li nga xam ne laa jàpp ni moom lañ ñoom moom la ñu war te nangu ñoom mooy ñu leen di pousse ci kaw population bi. ñuy dal ci kaw population ñuy dal population parce que loolu xoola man dama jàpp ni. Macky Sall jaru ko. lay Wade jaru ko woon. Ousmane Sonko jaru ko. Barthélémy Dias jaru ko. parce que fii ñun Sénégal ni ñu ñu yàlla suñ société ni mu bindoo mooy fii boo yoroon garaat bi gën a foor da ngay am sëriñ. bu la waxee nga dégg wala nga am dëkkandoo ngeen di demalante di dikkalante. kon am na loo xam ni maanaam nguur waru warul nguur waruloo ko defloo ba nga def ko. Mhm. loolu message bu may lancé la. Mhm. maanaam ñi yor ñi yor sécurité réew mi mhm. ñu xam ni réew mi moo leen di fay mhm. Macky Sall nekk fi dañ fiy nekk Macky Sall jóg fi dañ fi nekk man d'accorduma ñu armé leen pour ñuy dal ci kaw population bi parce que loolu bu amee day jurum mbañeel ci suñu diggante te gis nga bu ñu naxante mhm. ginaar sax boo ko poussé ba mu sës bu amul solution sa kaw la jëm te ñun waruñoo àgg foofu parce que politiciens yi Macky Sall bi coow li mettee dafa tel avion dem France loolu dañ cee war a jàngat dañ cee war a taxaw. Mhm. parce que yow réew mi mënta nekk ci situation bii mu nekk. ñu naan réew mi dina tàkkam lu tàkk nga jël sa avion dem. Mhm. jël avion <laughs> jël avion dem euh, on vous rappelle que vous êtes sur Sénégal 7 yéen a ngi seetaan sama réew. Euh, Vito Gaye ci ñu ànd ci ak euh, oustaz imam drame mhm. politologue analyste politique islamologue. Mhm. ñu ñu ñu rafetlu bu baax ay doom mhm. ci mbirum jël avion boobu. dem imam dama bëgg ñu ñu taxaw ci tuuti. ak parce que damay wax ci violence. dama bëgg ñu wax ci violence bi nga xam ne. nemmeeku dañ ko te élection yi jotagul. Hmm. ndax élection yi ne c'est dans un mois. Ziguinchor gis nañ fa la fa xewoon euh, Ndakaaru gis nañ fi li fiy xew te à chaque fois ñu ne président bu dara di xew day jël ay euh, day jël avion am dem je sais pas coïncidence la. wala c'est fait exprès. man man loolu loolu damay bàyyi nga nga nga nga àddu ci <laughs> question laa lay poser <laughs> waaye waaye tamit damaa bëgg juste ñu wax ci. Hmm. violence bi. solution bi lan mooy solution pour ñu dem ci ay élections yi nga xamante ne. Mhm. dina apaiser wu sax waaye taamoo lu période électorale loolu mhm. baaxoon nañ ko gis. ci mhm. ay violence ak yu ni mel. waaye. mu mu doon lu nga xamante ne lu lu normal la. te te mu tegu ci yoon surtout. gis nga Vito violence moom kenn la arrangé wu ci réew. arrangé wul opposition arrangé wul pouvoir. arrangé wu yow arrangé wu ma man. arrangé wul police ak gendarmerie. kenn la arrangé wul ci réew mi. kon jàpp naa ni képp koo xam ne ni ab sénégalais nga. Mhm. te yëg sa responsabilité. Mhm. rawatina ngay ak kilifa diine. Mhm. moo xam diine joo mën a doon. wala ngay porteur de de voix. war ngaa yëkkati sa kàddu wax ci violence bi am ci réew. te wax ko ci kaw nit ñi dégg la parce que da ngay wax pour ëllëg lu xew. yow ñu ni waxoon nga. Mhm, magum waxoon naa. maanaam dangay wax pour ëllëg lu xew ñu ni yow waxoon nga. Mhm. waaw mais doo wax pour lu neex kenn wala pour kenn mer lii dëgg mooy Sénégal ñaari diine yi fi nekk kenn kenn d'accordul ci fitna ndax Sénégal diine christianisme moo fi am. ak diine l'islam mm-hmm. lislaam du majorité mm-hmm. bu dee l'islam li mu wax ci fitna wax ay aaya yu leer la mm-hmm. ak i xaddis yàlla nee na na ngeen ragal yee fitna joo xam ni bu agsee ci yéen du yem ci yéen kepp yonent bi ni fitnaa ngi nelaw képp ku ko yee yàlla rëbb na la loolu leer na mu des nag lii tax violence bi du am bu ñu naxante violence lenn rek ay tax du am mooy règle du jeu maanaam constitution bi ni mu ko tegee loi yi kenn ku ci ne lim la may ñu bàyyee la ko est-ce que xam nga fi may waxee kenn ku ci ne am nga lu la loi yi may ñun ci république lañ nekk bu ñu organiser wu kenn ku ne la nga moom nañ la ko bàyyee opposition bi seen i àq nañ leen ko jox maanaam pouvoir bi tamit seen àq ñu jox leen ko mais bu ñu naxante mënuñu toog ci réew moo xam ni dañu ni liste Benno Bokk Yaakaar yëpp baax na kenn rejeté wul benn liste Benno Bokk Yaakaar mbirum liste yi sax bëgg naa ñu ñëw parce que loolu mooy vrai mooy rek parce que ah. mbirum violence boobu dafa am benn sortie bi ci président def démb te dinaa ñëw ci sortie président bi li ñëw ci li indi violence bi mhm. parce que li indi woon li indi violence bi mhm. parce que violence verbale ci lay commencé dëgg la soog a violence physique soog a ñëw mhm. violence verbale bi li ko indi pour le moment mooy dañoo valider invalider liste opposition bi. ndax violence bi imam pour bañ la doog tamit. Hmm. tàmbali na. Hmm. laataa ñuy. waaw laataa ñuy. non violence moom yàgg na fi mais pour le moment nii. Hmm. nii li nga xam ne laa jàpp ne moo nara a indi violence bi. dëgg la ca kanam man ci laay analyser. donc violence moom at yii yëpp jugul ci réew mi. mais violence électorale moo gën a danger. parce que day taal am réew. surtout réew yi tàkk ci Afrique yëpp ay élection ko taal. dëgg la élection nag réew mi am nañ ab code boo xam ne dañ koo bind. ñëpp yem ci. code électoral code électoral bi nañ ko respecté ku ci ne la nga moom ñu jox la ko. préfet yi ñu xam li fi seen pouvoir yem ñu yem fa. li nga xam ni seen pouvoir àggu ci. ña ca seen pouvoir àgg ñu bàyyee leen ko. ñu bàyyee ko mais bu ñu naxante kenn mënul jël waa Benno Bokk Yaakaar ñëpp ñu ni seen i liste mat na waa opposition bi seen i liste ñu koy rejeté. moo tax maa ngi kontaan bu baax di rafet lu li cour d'appel def loolu mooy responsabilité. wane ni préfet yi loolu ngeen di wax seen compétence àggu ci mhm. daal di valider waat liste yi mhm. gis nga parce que réew mi képp ku gëm ni dañuy dem ci ay élection ah mhm. Macky sàll kese dem ci nga jàpp ni réew mi day apaiser yow yaay ennemi Sénégal parce que loolu mënul nekk parce que nit boo ko xañee mu bokk ka ko xañ mu bokk du nangu mu bokk dëgg la kon bu ñu naxante xam nga man ñun nekkuñu fi comme li tubaab bi def yi di wër-wëral ñun dañuy wax problème fi mu ne problème bi fi mu nekk nañ bàyyi ñëpp bokk. Mhm. ku bëgg a bokk bokk. sénégalais yi tànn ki leen doy. ñu fexe sénégalais yëpp jot seeni carte mhm. yaa ngi dégg yé leneen luñ fi wax def lu dul loolu bu fitna amee ki tere nit ñi bokk kooku moo indi fitna ji. xam nga fan yaa ngi dégg ay certaines analystes politiques ñu ngi toog ci plateau yi. Mm-hmm. naan non opposition bi dañoo bëri fitna. non bu ñu naxante opposition mënuñu opposition munul yëngal réew. Mm-hmm. parce que opposition amul armée amul gendre gendarmerie. Mm-hmm. yaa ngi dégg te fii bu ñu waxantee dëgg opposant bu fi yor arme ci poosam amul. xanaa kuñ bëgg a fetal nga fayu comme nañ def Barthélemy Barthélemy dañ ko fekk këram ci meereem lañ ko fekk. yaa ngi dégg bugg ko agressé te man képp ku ma bëgg a agressé man. Mhm. dama yor arme dama la koy dóor man imam parce que kooku self défense la mhm. loi bi moo ko maye kon nañ waxante dëgg te bàyyi caaxaan ak mhm. tappale lii dëgg mooy lañ fexe ñëpp bokk bu ñëpp bokkee rek ñu organiser ko ci façon bu boo xam ne nii Sénégalais yëpp dinañ leen may possibilité ñu tànn seen maire buñ ko defee réew mi dara du fi am réew mi terroriste amu fi bu ñu mm. naxante. Mm. réew mi ku gëmul république amu fi. force occulte. force occulte amu fi xam nga kan moo fi am. ab mm. citoyen bu gëm démocratie. te bëgg réewam te réewum am lu mu ko jaral. Mm-hmm. te Cheikh Hadji Abdou Aziz sama sëriñ dafa am lu mu daan wax. nee na nit boo nekkee ci dëgg boo nekkee ci dëgg nit nekk ci ay fen mm-hmm. ki nekk ci fen yi lépp lu mu ko jaral yow mi nekk ci dëgg na la jaral lu ko ëpp.